alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidi al awalina wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiina wa wasilatina ila rabbina mabuusun raxmatan lil alamin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëw ci émission bu am solo bi te mooy euh, al adab te mooy teggin yi nga xam ne nit ki moom la war a doxale di ci ànd ak seen mbokk Issa Samb ci rajo bi nga xam ne moom mooy Ar Risaala di ñaan suñu boroom tabaraka wa defal ñu kàddu yu gën a mëdd kon incha allah ci jotaay bi weesu euh, introduire nañ ci lam mooy al adab mooy teggin naka noonu tamit waxoon nañ parti bi nga xam ne ne wala tàmbali woon nañ parti bi nga xam ne ne mooy teggin yi nga xam ne moom lañ war a doxalee ak suñu borom tabaaraka wa taala bu ci jiitu woon moom mooy euh, fexe ba nga xam ne ne duñu bokkaale suñu borom tabaaraka wa taala kon boo déggee loolu da ngay xam ne ne ñoo ngi ci bunt boo xam ne ne day wax ci àq suñu borom tabaaraka wa taala bu ci njëkk moom mooy bañ koo bokkaale ak kenn bañ koo bokkaale ak dara loolu moom mooy li nga xam ne ne ci tënk moom nañ gisoon ci jotaay bi weesu naka noonu tamit gisoon nañ ne dafa am ñeent poñ yoo xam ne ne nit ki da ko war a bàyyi xel bi ci njëkk moom mooy ixlaasu niya wala ixlaasu lillah moom mooy fexe ba nga xam ne ne mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne moom ngay def nga def ko lu dul ngir yàlla te bañ ko bokkaale ci ak kenn wala ngay nga koy nga ci ngistal euh, ak kenn gis ngistal mooy ngay def benn jëf boo xam ne ne pour àllaaxira waaye nag yaa ngi koy def pour nit ñi gis la nga am benn renommée wala benn gisin boo xam ne ne nit ñi dañ koy am ci yow naka noonu tamit gisoon nañ lu aju ci li nga xam ne ne moom mooy ñaan ndax ñaan da ngay gis ne ne suñu borom tabaraka wa rek dañ ko war a defal waaye tamit gisoon nañ li nga xam ne moom mooy Euh, melale wala di jéem a toppandoo suñu boroom tabaraka wa taala li nga xam ne ne moom nañ gis moom mooy di fuglu suñu boroom tabaraka wa taala kon jotaay bi weesu yooyu nañ jotoon gis kon incha allah waxoon nañ ne ne ci àqu suñu boroom tabaraka wa taala kon niñ ko introduire woon ne danga mooy nit ki daf ko war a jaamu te bañ ko bokkaale ak dara kon jotaay bi weesu dañoo njëkkee ci dernier bi mooy bañ ko bokkaale ak dara tey incha allah ñu war a gis al ibada wala al ibadat ñi nga xam ne mooy jaamu yàlla yi mooy deuxième partie bi nga xam ne ne moo nekk àq ci suñu borom tabaraka wa taala ci suñu kaw maanaam ñun dañoo ameel àq suñu borom tabaraka wa taala ci di ko jaamu ndax lan ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne wa ma xalaqtul na wal insa illa li yaabuduun binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu kon loolu boo ko déggee da ngay xam ne ne bokk na ci sabab yi nga xam ne ne moo tax suñu borom tabaaraka wa taala te moom mooy bi gën a fës bi nga xam moom la yaxal ci alquran mooy ne li tax mu bind la du dara dara dara dara dara lu dul ngir ko kon lépp looy def lu ne lu dul mu nekk jaamu yàlla rek xamal na nekkoo ci li tax ñu bind la kon nit ki saa yu xëyee saa yu gontoo saa yu nekkee koo xam ne mu ngi nelaw ak ci lu mu war yëngu rek lu ne dafa war a transformer dundam boobu wala minutam yooyu ci jaamu yàlla dinañ ci ñëw ci naka nañ koy defee waaye tamit dafa wax ci beneen aaya ne wa ma arsalna min xablika min rasulin illaa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabuduuni loolu mu ngi ko wax ci suratul anbiya mu ne amul kenn ci ñi nga xam ne ne ñoo la jiitu woon yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne waxiw nañ ko dee nañ ko ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul suñu boroom tabaraka wa taala wala amul benn buur bu ñu war jaamu ci dëgg kudul kudul ñun mooy suñu borom tabaraka wa taala fa'buduni kon jaamu jaamu leen ma loolu da gis ne ne la fekk mu ne fa'buduni jaamu leen ma loolu da ngay gis ne ne kon al loolu dafa nekk loo xam ne ne farata la boo xam ne dafa gàll ci loos bépp jullit képp koo xam ne ne mu kàllaf nga wala kàllafe nga li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla yi mooy yi nga xam ne moom nañu war a jaamoo suñu borom tabaaraka wa day nekk loo xam ne ne obligation lay nekk ci yow farata farata lay nekk ci yow jaamu yàlla yooyu nag naka lañ la borom naka la leen borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim classifié ñoom ci boppam dañ ko classifié ci ñetti façon jaamu yàlla bu ci njëkk moom mooy ibadatul maliya ibadatul badaniya mooy deuxième bi troisième bi ibadatul maliya wa badaniya loolu la muy signifier premier bi moom mooy ibadatul maliya mooy jaamu yàlla boo xam ne ne alal moo koy def am na jaamu yàlla yoo xam ne alaf alal rek moo ko mën a def lu ci mel ne azaka hmm, yooyu yëpp al ak sarax ak yu mel noonu da ngay gis ne ne loolu yëpp al infaax infaax tamit loolu tamit infaq moom mooy don boo xam ne ne da koy mettre à la disposition de tout de tout musulman comme li ci mel ne nga tabax tabax benn jàkka ne jàkka yi kenn du ko donn léegi nag comme jàkka yi kenn du ko donn ñëpp ñëpp a ko moom bien public la boo xam ne ne jullit yi ñoo ko moom ñooy ñëw fi julli et cetera àdduna du neex ba sama doom man mii ko joxe sama doom ñëw ne damay réclamer li sama àllu baay wala sama baay génn àdduna kon lii dañ koy miiraasaale loolu kon kenn du ko miiraas kenn du ko boole ci li nga xam ne ne moom mooy patrimoine bi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom la mu moo ko tabax donc da koy jox jullit yi ñu koy jëfandikoo eh, ngir seeni ngir seeni mbir kon loolu mooy al infaax moom mooy eh, dépense ci yoonu yàlla yooyu yëpp nag lu koy def moom mooy alal mooy azaka bi mooy infaax bi naka noonu tamit Euh, lu mel ni euh, sarax yi nga xam ne moom nga moom la nit ki nit ñi di saraxe et cetera moom ibadatul badaniya ibadatul badaniya mooy jaamu yàlla boo xam ne ne yaram moo koy def jaamu yàlla boo xam ne yaram moo koy def nag mun nañ ci citer lu ci mel ni julli lu ci mel ne woor yooyu tamit ñaar yooyu dafa nekk loo xam ne ne yaram moo koy moo koy def jihaad tamit yaram bokk na bokk na ci nga xam ne yaram moo koy def mais moom ci troisième partie bi la bokk kon yooyu moom mooy yi nga xam ne ne comme julli ak woor bi yooyu defu bokk ci yi nga xam ne moom la ñuy wooye ibadatul badaniya mooy jaamu yàlla yoo xam ne ne yaram moo koy def mu am ibadatul badaniya wa maliya muy jaamu yàlla boo xam ne ne alal ak yaram moo koy def yooyu mooy yen lu ci mel ne eh, aj màkka naka noonu tamit lu ci mel ni jihaad bu ñu waxoon sànq ndaxte boo eh, aj màkka lu koy def moom mooy xaalis naka noonu tamit yóbbal waaye tamit am na eh, jëf yoo xam ne danga koy def yoo xam ne ci ci ci kaaba gag yu demee noonu yooyu yëpp yaram moo koy def mais pas alal donc ñaar yooyu la boole naka noonu tamit jihaad jihaad day boole nga am provision am alal boo xam ne as tuut bu fekkee as la looy dunde naka noonu tamit ak sa ak sa yaram ilaaxiri kon ñett yooyu moom mooy façon jaamu yàlla benn bi day nekk ci alal benn bi nekk ci yaram am yoo xam ne ne day nekk ci alal ak ci ci yaram loolu nag ñu ngi ko tibbee ci xadiisu jibril alayhi salaam la xam ne ne dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak melo bu mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te abdullah ibnu omar ibnu xataab radiallahu anhu nettali ko jëlee ko ci baayam te omar muy koy laaj al islaam mooy lan axbir nii daf ko wax ne an tashhadu an laa ilaha illa na amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul suñu borom tabaraka wa taala et que man mii di muhammad nawul yàlla la deuxième bi donc da ko teg ci cinq points premier point bi loolu la mooy seede bi nga xam ne moom nga war a seede deuxième point mu wax utu utu xima salaat te taxawal julli ututiya zakat te ngay joxe azaka wata xaj wata sawmu ramadan te ngay woor weeru koor wata sawmu wata xajjul bayt man istataxte ilayhi sabila nga aj màkka même bu fekkee benn yoon la rek ci sa ci sa dund kon loolu nga dégg ne cinq points yooyu la wax te cinq points yooyu ak lu mu ko traité dafa traité ñetti points yi ñu ñu ko wax ci jaamu yàlla yoo xam ne ne alal nañ koy def jaamu yàlla yoo xam ne yaram nañ koy def jaamu yàlla yoo xam ne ne alal ak jëmm ñoo koy ñoo koy def kon loolu da ngay gis ne ne comme par exemple jaamu yàlla yoo xam ne jëmm moo koy def bokk na ci zikkar zikkar tamit jëmm mooy làmbin moo koy moo koy def kon loolu da ngay gis ne ne euh, moo tax sax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, al islam boobu parti boobu yenn saa mu wax al islam lu mu ko définir ñu koy woowee fiq ñu koy tuddee fiq mooy xam-xam bi nga xam ne mooy traité lu aju ci loolu dinañ ci ñëw kon nga war a xam na ne l'islam boo déggee xadiis boobu la xam ne dafa ne premier bi moom mooy dangay ngay seede kon ci sa làmmiñ waaye yeneen kat yi mu wax yépp yaram moo koy def maanaam euh, jaamu yàlla yoo xam ne yamul rek ci làmmiñ kon loolu danga ciy déggee ne euh, lislaam xawlun wa amalun maanaam lislaam wax la ak jëf lislaam nekkul loo xam ne dangay wax kese waxi kese taxuta bokk ci lislaam waaye lii tax nga mën a bokk ci lislaam dëggi-dëggi bokk mooy Euh, wax bi mooy shahadatayni mooy seede yi waaye tamit jëf bi te loolu ijmaa la ci saxaaba yi ijmaa la mooy saxaaba yëpp ci dëppoo naka noonu tamit salafu saalix mag yu njëkk yi ñoom ñëpp ci dëkko dëppoo comme ni ko imaam Shafii rahimahullah euh, waxee kon loolu boo ko déggee da comprendre ne kon l'islam ci boppam xamul seede naa kese kon damay toog duma jaamu yàlla déedéet kon loolu dañ ciy déggee na jaamu yàlla bi nga xam ne ne moom nañ war a jaamu suñu boroom tabaraka wa taala farata la te bokk na ci julli yi woor yi ci gën a fas yooyu la mooy julli yi woor yi natt azaka yi aj màkk mooy cinq yi nga xam ne yéen sax moom la moom la tëral am na borom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhim dañ ciy boole jihaad wala dañoo wax ne li tax boolewu ci jihaad moom mooy na jihaad nekkul chaque instant lay war alors que cinq quatre yi te mooy julli bi woor bi natt azaka bi añ màkk bi yooyu dafay war tout le temps ci jullit bi amul benn moment boo xam ne ne day déggeeku ki nga xam ne mooy jullit bi donc loolu da ci ciy déggee ne euh, jaamu yàlla yi jaamu yàlla ci boppam dafa nekk loo xam ne farata la waaye naka noonu tamit nekkul na yow yaay choisir sa façon jaamu yàlla loolu nañ ci ñëw après naka noonu tamit loolu moo tax nga gis ci xadis xadis bi benn bu ci nekk ci ponk yooyu dafa am naa la lii mooy mooy farata yi mais am na yoo xam ne ne mooy yi nga xam ne ne suñu borom tabaaraka wa taala daf la koo teg daf la koo gàll yoo xam ne yii moom du la wàcc fi anam yim lay wàccee mooy eh, yoo xam ne ne da ko préciser ci alquran bu fekkee nangam nag da leen dal na ngeen def na ngeen def nangam. woobaa la lay mën a wàcc mais fii ak yooyu noonu ak situation bu mënti doon yooyu la wàcc ba keroog ngay ba keroog ngay génn àdduna waaye nag dafa am yeneen yoo xam ne ne yooyu moom mooy nawaafil yi mooy yi nga xam ne du farata gaa mais nit ki mën na koy continuer maanaam mën na koy continuer di ko jaamoo yàlla ndax li tax suñu borom tabaaraka wa taala jël jaamu yàlla yi maanaam jaamu yàlla kii ci boppam julli woor nata azaka et cetera gàlluñu ko day bañ ñu wéet ci fi nga xam ne moom mooy suñu àdduna bi te loolu nañ ci ñëw après ci lam moo tax muy bañ ñu wéet ci suñu àdduna bi waaye tamit nit ki bu bëggee jege suñu borom tabaaraka wa taala la xam dafa bëgg gën a eh, góorlu ci jaamu yàlla boobu ci ja ci nekk ci mbumum jaam bi saa su ne dafa war a bëril ay nawaafil waaye ay naafila moo tax comme lu ci mel ni julli julli am na ay naafi la lu ci mel ne salaatu duha lu ci mel ni boo jullee euh, tisbaar ba pare wala avant tisbaar bi ñeenti rakk après tisbaar bi ñeenti rakk naka noonu tamit tàkkusaan bi avant tàkkusaan bi ñeenti rakk timis bi benn rakk am na ñuy wax euh, wala am na ñuy def lu tolloog six rakk après gée bi xiyaamul layli après ñëw na après safa witar ak yu demee noonu yooyu yëpp ay nawaafil la naka noonu tamit umra naafila la ci xaj màkk ci aj màkk naka noonu tamit sarax naafila la ci ci zak ci ci azzakat moom mooy ci azaka naka noonu tamit bokk na ci naafila yi xam ne nit ki da ko di jaamoo yàlla lu ci mel ne al amru bil maaruf wa nahyaani munkar moom mooy digle li nga xam ne mooy njekk waaye naka noonu tamit tere li nga xam ne moom mooy njombuteef donc yooyu yëpp boo ko diggee da ngay gis na ne am na yeneen yoo xam ne ne après na après farata yi yooyu noonu nit ki mën na koy def gi gën a mën a nekk ci mbuumul jaam bi gën a mën a jege suñu borom tabaraka wa te loolu lu koy firndeel mooy xadis bi nga xam ne ne xadis xudsi bu siw bi te mu fu muy waxee ne wama taxaraba ilayya abdi bi cheyin ahaba ilayhi mimma aftaratuhu alayhi mu ne amul lenn loo xam ne ne sama jaam moom la may sàkkoo jegeen lu lu lu ma gën a bëgg lu dul li nga xam ne ne moom mooy samay farata kon yi ma farataal ci moom kon loolu da nga ciy déggee ne munoo ne damay ut sama damay jege suñu borom tabaaraka wa taala ci beneen yoon mais du ma jaar ci yi nga xam ne moom la farata moom la ma farataalal maanaam jël farata yi teg na le ba pare di continuer da ngay jaamu yàlla dala leer na ne fi nga toog départ départ goo fa bay jege suñu borom tabaaraka wa ndax suñu boroom dafa wax ci xadis bii ne amul kenn koo xam ne sàkkoo na ma jegeel jege ñu ci lenn lu ma gën a bëgg lu dul li nga xam ne moom laa farataal ci moom kon li ngay njëkk def moom mooy nga respecté déjà farata yi kon moom mooy yi ñu la wax sànq julli woor yi nat azaka yi et cetera waaye nag mu teg ci ne wala yazaalul abdi sama jaam nag du dañ yataxarraba yataxarrabu di ba li ma jege di ma jege jegelu il eh, ilayya bi nawaafili ci ja ci naafile yoo xam ne da koy def xatta uhibbahu ba keroog ma koy sopp kon naafile yi moom mooy boo defee farata yi ba pare naafile yi nga xam ne moom nga ciy teg loolu day permettre nga mën a am mbëggeelu suñu borom tabaraka wala cofeelu suñu borom tabaraka wa taala la wax nag moom mooy kon day xaw a yàgg ñu ciy nekk di ci nekk di ci nekk ba keroog suñu borom tabaaraka taala defal defal la ko kon loolu eh, danga ciy déggee ne farata yi ak naafile yi ñooy moyens yi nga xam ne ne ñooy tax nga mën a jege suñu borom tabaaraka wa taala te mooy jaamu yàlla yi nga xam ne moom lañ doon moom lañ loon cité naka noonu tamit. saa yoo jaamoo suñu borom tabaraka wa taala wala saa yoo nekkee ci nga xam ne moom la faratal di nekk ci naafila yi day tax suñu borom tabaraka wa taala nga jege ko naka noonu tamit mu bëgg la te mooy te nit ki lu mu war a ut kon loolu day wane ne jaamu yàlla yi dafa am influence ci sa ngëm jaamu yàlla yi dafay am influence yoo xam da koy créer ci ngëm yàlla bi nga xam ne moom nga gëm mooy tax ñu nga gis euh, waa ahlu sunna wal jamaa di wax ne ngëm yàlla day yokk ak di wàññeeku nit ki bu nekkee ci jaamu yàlla bu nekkee ci yi nga xam ne ne yàlla moom la ko farataal di jaamu yàlla même bu naafi la naafilagul sax dina yëg paix intérieure boo xam ne jàmm boo xam ne ne féex boo xam ne ne mel na comme si li ko waroon wàcc na ko donc dina yëg tamit ay évolution yoo xam ne ne spirituelle la yoo xam ne day xam ne ne instant bii nii jóge naa ci étape A maa ngi ci étape B maa ngi nekk koo xam ne ne maa ngi euh, nager maa ngi fay ci li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla mi nga xam ne moom laa war a jaamu yàlla maa ngi fay ci li nga xam ne ne moom moo ma war maa ngi am esprit boo xam ne maa ngi am xel boo xam ne sama xel mu ngi dal ndaxte maa ngi def yi yàlla faratal ci man teg kooku da gis ne ne bu fekkee mu ngi koy respecté normal da ngay gis ne day am dara ji day am degré ngëm yàlla boo xam ne ne yu bëri day tax seytaan du ko ci mën a galgal naka noonu tamit yenn pas-pas yu bees yi yenn pas-pas yu bon yi du ñu am influence ci ci xolam lépp lu mu dégg rek day nekk loo xam ne ne da koy segg comme ni mu waree ba pare jël ci li nga xam ne ne moom la moom la ci war a jël naka noonu tamit koo xam ne ne du jaamu yàlla nekkul ci yi nga xam ne moom la ñuy wax nii boo leen seetloo ngëm yàllam day oyof ngir nit ki wax ko lu yàq diineem wala ngir nit ki convaincre ko léegi sax pour mu bàyyi diineem nekk ci leneen wala pour euh, loo xam ne yàlla da koy tere yén saasam da koy tere diine ci boppam la ko bañ moom pour leneen ñëw influencer ko pour mu def ko day daal di yomb ci moom kon loolu day wane ne jaamu yàlla yooyu noonu day am influence ci suñu ngëm yàlla bi nga xam ne ne moom la moom la gëm naka noonu tamit bu fekkee noonu la demee tamit nekkul ne nit ki moom mooy choisir façon jaamu yàllam loolu am na foo koy choisir moom mooy ci naafile yi ci naafile yi mën nga choisir ne man nag pour naafila mënuma yëpp waaye nag dinaa ci def ndàngam ak ndàngam ak ndàngam wala dinaa ci def rek bii ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na koo xam ne dafa ñëw ba ci moom ne ko man de dama laa bëgg dama laa sopp mu ne ko dëgg la ci yow mu ne dëgg la ci man mu ne ko li ma bëgg nag moom mooy bañ a tàqali ko yow fii déjà maa ngi lay gis amul benn problème mais nag li ma bëgg mooy gis bi ma lay gis fii nii ak laaxira tamit ma lay gis noonu ñu bokk dëkk ma lay gis yonent bi ne tekk ne ko del ma del ma dimbalee ay nawaafil maanaam del ma dimbalee ay sujjóot bokk del ma dimbalee ay sujjóot kon dimbali ma ay sujjóot kon loolu nga gis ne ne benn jaamu yàlla la boo xam ne yoon saa sam moom la ko sant naka noonu tamit Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu boo xam ne yoon saa sam ko sant wala da ko da ko da ko digal ngir ci ñetti mbir première bi moom mooy muy woor ayaamu diidi mooy ñetti jours yi nga xam ne moom nañuy woor chaque chaque mois naka noonu tamit mu digal ko salaatu duha muy julli yor yor naka noonu tamit mu euh, digal ko ngir muy witar kon loolu nga gis ne ne ñett yooyu moom la tànnaloon seen abu hurayra radiallahu taala ngir mu koy def comme naafila naka noonu tamit am na yeneen comme lu ci mel ne euh, abdullah ibn mas'ud moom lu mu ko digaloon mu mooy julli guddi et cetera kon loolu dangay gis ne ne jaamu yàlla yi lu mel na ci naafile yi mun na am différence selon nit ki moom mooy kan naka noonu tamit bu fekkee suñu a Aïcha moom dangay gis ne saraxe la la gënoon la ci saraxe bi ak jàngale bi la gën moo gënoon nekk naafilam kon loolu boo ko déggee da nga gis ne ne naafila ci boppam mun na am ay différence kenn ku ci nekk li ngay choisir waaye nag bu fekkee ci jaamu yàlla yi amul ci choisir amul ne man bii nii laa koy defee wala bii kese laay def farata yi moom yëpp ngay defandoo yëpp moo war ci yow fii ak condition yaa ngi yaa ngi mat léegi kay fii bi mu may naka nañ koy defee nag julli yi doone man nu ma neex lay jullee wala man nii laa mën a jullee kon noonu lay jullee déedéet julli bi ak woor bi ak natt azaka bi duñ ko wax noonu rek après kenn ku ci nekk nga dem nga xool na yow noo koy defee waaye dafa am texte yoo xam ne ne yu leer yu lay jàngal ne la nii nga war a jullee nii nga war a wóoree nii nga war a nattee azaka nii nga war a ajee màkk ak la mooy gëm yàlla et cetera donc texte yooyu noonu jàngale yooyu noonu ñu ngi ko jëlee ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam jëlee ko tamit ci njàngale alquranul karim naka noonu tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo ko ci tiire ba jàngale ko la xam ne ne loolu ci bopp mooy li nga xam ne nit ku nekk moom la war a doxale kon loolu incha allah mooy lu aju ci jaamu yàlla yi ñu war a xam tamit kon ci tënk ne jaamu yàlla yi eh, day am influence ci nit ki te da koo war a bàyyi xel bu baax eh, ci imaanam da ci am influence plus nga koy bëril plus nga gis nga ci am concentration plus muy am effet ci sa biir xol naka noonu tamit Euh, ni nga ko war a defee tamit dafa nekk loo xam ne ne dafa war a dëppoo ak alquran ak sunna ak njàngale yonent te mooy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu tamit nga xam ne ne loolu àq la ci suñu borom tabaraka wa taala ci ñu jaamu ko waaye tamit niñ ko war a jaamoo loolu jàngal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc loolu nañ war a noonu nañ ko war a pratiquer kon ñoo ngi jéggalu ci kàddu yi lépp lu ci dëng